waa ngi waaw maa ngi ni fay. maa am jàmm. maa ngi sant Serigne Touba. ana paa bi baa mu ngi si jàmm. mu ngi si jàmm bu baax a baax alhamdulilah. mais tey ban yëg-yëg nga am axlu làmb Sénégal tànn la nga doon jeune nekk si eh, biir ah, axlu làmb di dundal làmb di si bay sawaar tey ñu tànn la si ñi nga xam ne ay tambour major lañ fa yéene laa décorer nga teew si bis bi tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw ginaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi maa ngi sant samay ñaari waajur ak sama tànta di gërëm waa axlu làmb yëpp ku kuy dundu làmb rek maa ngi lay ziar di la bëggee dina ñaanal jàmm waaw loolu lañ ci am contentement rek te jii buñ nekkee ndaw ñuy tànn ñu si ñu ñu war a décoller si axlu làmb dañu nekk loo xamante nii dañ siy con am contentement bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Sénégal yëpp di wax ne yàlla na yàlla xeeb doole. tey jii nii nii nii boo ñu loon wax tey saison bi ni mu gàtt lool lool lool tarkaal la seet si nañ la sax gànjaay ñu seq benn waxtaan saison bi di waaja a tijji nii ñu fekk la keroog jurub nga yëngal lool ba mu yëngu ndeysaan donte mbay ak ñëwul waaye maire du ans mu fa woon di ko toj nga def fa loo xam ne ba tey coow laa ngi des euh, euh, ndeysaan nan ngay waajee saison bi instant yi nii. waaw ñun ay xale lañ te liggéey moo ñu tax a jóg ndaxte dañoo bàyyi lu bëri ne làmb mooy suñu métier fi ñu toll nii te nit ki boo nekkee si li ngay liggéey année bu ñëw da ngaa war di innover am na yu bëri nag yoo xamante ne nii génnagul bu saison bi tijjee daal ah dinañ xam ne daal ñu ngi liggéey te li ñuy li ñuy def nii mooy suñu métier te dañ koo yaakaar dinañ xam daal ne ñun fowuñ te fowuluñ te ànduñoo kuy fo. Hmm. kon daal mën nañoo xaar yeneen yu bees yoo xam ne nii yu dàq yi nga xam ne moom la ñuy gis nii. waa incha allah. incha allahu rabbi waaw loolu moom ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. mais instant yi moomoo est-ce que am na ay làmb yu taxaw yoo xam ne fi mu ne nii nii ay yoo xam ne journée yu taxaw yoo xam ne na kaa baaxee askan wi nii fii ak fii la war a jëm instant bi. waaw fi ñu toll nii moom soo bëggee dégg-dëgg làmb yi fi ñu toll nii mun naa ne xanaa dëkk ndox yi mais li wër fii nii si ville yi nii làmb mën a gu fee am ñu ñun ñaa ngi ñuy woo nag ñu ñuy contacter ñu ngi ñuy bàyyi loo xel pour ñu bàyyi leen xel pour seen làmb yeeg yooyu waaw. mais fi ñu toll nii benn làmb mënagul confirmer ndaxte si moment yi ñu nekk nii ak confirme ak mbas mi ñu nekk nii yaa ma gën a xam waaw mais daal ay nit ñu woon nañ ñu yu bëri dañuy wax seeni i waaw ba dëkk ndox yi pour ñu bàyyi leen xel ak yooyu mais ñun fi ñu toll nii yoruñ dat waaw ñun moom yoruñ dat CNG ñoo yor dat ñun dañuy toog déglu leen waaw ku ñëw nag wàññi sa làmb dinañ la wax waaw bu jotee nag bu buñ munee ñu fekkee am na ñu la jiitu boo yegsee dinañ la wax ne nag kat am na ñu la jiitu bu nekkee kenn jiitu la boo ñëwee dinañ la jël ndax te ñun loolu moo ñu fi taaj dañuy liggéey. waaw di kontaan si yéen bu baax a baax jërë ngeen jëf.